kontaan rek. lu lu tax nga kontaan tey. non ñun amuñu lu barke. sunu nit la sunu frère la. dëgg jub na bari na. dëgg la xam nañu entraîné na. li mu entraîné Gris mbër la nañ ko félicité. man droite bi laa ko doon moytuloo. man duma far te droite bi li ma doon ko moo am. mais bu doon bu ñu jàppante Balla Gaye moo ëpp bëre. Gris Bordeaux ñu koy encouragé. di ñaanal Balla Gaye ndam li jik ñun amuñu ku moom. Balla Gaye moo jiitu na jël ay rakam uuf leen lu mu dégg même bu ay saaga ndey na ko jiitu neexul ñun bañu ñu ko bëgg ndam lañ ko bëggal lamb ji amul luñ ci dajul ci côté ndam yàlla may ko ndam di félicité waa géej waay gi yëpp di félicité Gaston di félicité Makan di la félicité Dembélé di